maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant jiital ci nuyoo bi donc di yëkkati nuyoo yu tedd di ko jagleel xalif général sëriñ Muntaxa yal na fi yàlla yal na ko yàlla yàggal fii lool mu ànd ak wér ba naal yëpp muy def yàlla mën ko mottale incha allah di nuyu bu baax ku ko fi teewal bi bu baax sëñ Ahmed Badil nga xam ne moo fi teewul sëriñ bi ak mbooloom kilifa yi nekk kilifa yi fi nekk yi muy sëriñ Saaliw bu sëriñ Muntada di sëriñ Muntada Jadara ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ci université yi parce que su ma limee rek xam naa naa jum ak ñoom ñëpp ñoo ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu tamit mboolam ñi nga xam ne teew nañ ci muy directeur d'école yi principaux yi proviseurs yi ak déclarant responsable yi di nuyu mi nga xam ne moo fi teewal IA Cheikh Muxtaar Lo di ko gërëm di ko sant ndaxte moom tey moo waroon wax ci turu inspecteur d'académie mais mu jagleel ma ko maa ngi ko ciy gërëm bu baax a baax tey ba may ñëw maa ngi ànd ak secrétaire général bu IEF inspecteur Mamadou Ngom ak inspecteur bi nga xam ni moo amee wàllu arab muy inspecteur Serigne Jili Mbacke muy wane dayo bu ñu jox jataay bi té loolu ba la ma ci dugg dama bëggoon profiter ci occasion bi gëna nuyu ak gëna gërëm gëna sant la khalif général sëriñ muntaha parce que gis nañu ba mu ñëwé ba légui njang mi dafa jëm kanam té comme nuko ko suñu Ahmadou Bari waxee Touba daara la manam bu ñu né Touba rek jang la xalaat té jang bu jitu moy jang alcorane donc tey bu ñu ñëwee jotaay bi dañ ciy sant yàlla di wax ne sëriñ bi yemul rek ci loolu man fekkee naa ñaari daje yoo xam ni ba léegi su ma ko fàttalee damay xam ne kii wax dëgg yàlla royukaay la. bu njëkk bi mooy fi nga xam ne dañuy dajale mbooloom jàngalekat di leen sargal loolu fekkee naa ko fii ci tuubaa moom mu organiser ko ñëw teewee ko beneen daje bi mooy boo xam ne dañ ko def Mbàkke boobu yàggul lool ñu waroon. sargal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ci école yi di def ay liggéey yu am solo ñu waral leen sargal jox ko invitation mu yëgati délégation bu mag bi nga xam ne sëñ Ahmadou Badi bii moo ko jiite woon ñëw teewee ndaje bi ba lépp li nga xam ne berne la woon ci ndaje moom moo ko jël def ko wane donc dayo bu mu jox jàng ak jàngale donc loolu ñu bëggoon ko rafet bu baax a baax a baax di wax ni nañ ñu ko nañ ñu ko joddale tamit suñu ngërëm ak suñu cant ci lool ci wàllu programme yi tamit bu dee wiru mbiru jàng ak jàngal ak tàggat xale am nga loolu dafa nekk loo xam du taxaw benn béréb maanaam dafay dem di méngoog toujours ak jamono di méngoog jataay yi di méngoog gox yi ba nga xam ne boo xoolee sax ci njàngu Sénégal 1960 ba 2000 boo doon xool jàng bi presque jàng français rek ak arabe la woon ak français bi am doole mais dem nañu ba gis ni loolu. doyul ci nit maanaam nit bu jàng rek di tari mais jikkoom am na solo te boo ne ci wàllu jikko diineem da cee am solo mu am diine nga xam ne diine boobu moo koy won yoon moo koy leeral boo jàngee ba xam suñu ne science sans conscience ñun dañ naan science sans fois maanaam boo jàngee na nga am diine ba nga xam looy def da ko mën a seetu xool ko boo ko defee doo juum

ba ñu tàggal leen ba nga xam ne seen wàllu àdduna ak seen wàllu àllaaxira yëpp duñ ci am jafe-jafe loolu moo dem ba indi ñu indi ay daara moderne daara yooyu nga xam ne dañ fay jàngale ñetti at yu njëkk yëpp arxuraan kese la ñuy jàng soog a dugal leneen yeneen façon jàng ci ñeenteelu at bi donc loolu lépp muy wane lu ñu war a jox ci wàllu diine tey ji bu ñu ñëwee fii ci wàllu tuuba ñu war a dugal yu mel nii nag ñu war a dugal kuy Cheikhul Khadim wara duggal lan moy jangalem lolou dañ koy rafetlu bu baakha baakha baakha a baax a am solo parce que gis nañu tay jamono woné nako ko war nañu wat ci jàngale mag ni war nañu jël mag ni comme royukaay suñu bëggé avancer te yeen déjà yeen nga ci yoon wo wala duma tax yeen mais dama ni señ muntaha yan nako yalla yagal fi mi ngi ci yoon wo lolou motax ñu naan gis-gisam rafet na kenn du ko naataabale donc ci ko lolou ñun daañ ci taxaw wàll buñ ci war a taxawee ba incha allah yàlla mën nu ci def luñ ci bëgg yëpp yàlla mën ko matal incha allah donc loolu defe naa lu ñu war a wax la war ko gën a dëgër boo gisee ñu ne modèle loolu la ñuy tuddee pédagogie di modèle maanaam nit war na am toujours royukaay te royukaay bi ñu koy wax ñun suñu kilifa yi diine moo tax ñuy wax te bu ñuy waxee suñu kilifa diine fii ci Touba dañ naan Cheikh Cheikhul Khadim nga jëlaat njàngaleem ñu ne la mouridisme nga xam ne da lay tàggat di la jëmale ci yoonu yàlla nga xam ne ñun ñëpp loolu la ñuy sàkku donc loolu bu ñu nga tàggatee ci xale yi gis nañu seen taxawaay di gën a rafet bu ko defee xëy na yu bëree bëri bëri door ñu ko dund wala duñ ko dund loolu lu am solo la te dañuy am foofu sëñ jatar wax na ko sànq même ci wàllu taalif yi ci wàllu kii yooyu yëpp tamit dañ ciy taxaw su booba parce que fu mu nekk nguur gi yooyu mi ngi ci fu mu nekk nii booy xool même wàllu langue nationale am na ñu ca dugal muy wàllu lecture xale xale ni leen tàggale ci wàllu liir ñoo ngi ko def nii waaye loolu programme bu yaatu la ñu tëddee ko MOEPS modèle harmonisé de l'enseignement bilingue maanaam fexe ba jàng suñu làkk yi dugg jël place bu baax a baax ci jàng bi ci ci école yi bu ko defee ñu mën a am nag ay taalif ak yeneen yoo xam ne lépp ay njëriñ la pour xale yi boo jëlee ñu mel ne sëñ Moussa Ka yu mel noonu jàng yooyu lépp njëriñ la nga xam ne nit ka da koy wax du demee ci wax ba waaye du koy jëfee nga jël xasaay di ba si nga xam ne mën nañ ko traduire en en wolof nit ñi di ko xam di ko tari sëñ bi bu la ñëwee ci wàllu sàkku xam-xam na ko war a sàkkoo nga war a am pas-pas war a ñeme xiif war a ñeme sonn xam ne xam-xam du yomb yooyu bu ñu tàkkatee xale yi defe naa incha allah daañu mën a am xale yu ñu soxla pour dire yoon wi ñu jëm macha allah yoon wu rafet la moo tax bañ koy def validation waa ministère ba ñu ñëwee ñoom ñëpp dañoo maasaloo ni lii moom franchement lu rëy la te bëgg nañu incha allah yàlla def ci ndam ñu mën ko yaatal ci réew mi yëpp donc loolu defe naa lu am solo la donc loolu ñu taxawaat ñun di feddaliwaat suñu taxawaay ak suñu jàpp ba lépp mën a sotti incha allah parce que am na ci yoo xam ne dañu koy liggéey waaye ñu ne nga koy liggéeyal bu Touba ñun ba léegi maîtriser wuñ ko. parce que tout dafa yaatu faire ñu demee tey ba am kuréel goo xam ne yooyu ci mën dox su boobaa daf ñuy dimbale ba ñu mën xam tey bu ne privé bi ñu xam ñaata école ñoo a wala ñaata fi yu am autorisation xam nañ ko mais am na xam ne ko donc loolu ñoom mën nañ sukkandiku ci ñoom su surtout fiche pour mën xam carte bi yëpp lan la fan la école la direction ba ñoom daañu dëppook lu sëriñ borom dëkk bi bëgg fii ci dëkk bi dëppoog aussi lu administration bëgg bu ko defee ñu mën a am autorisation mën a tàggat xale yi tàggat bu baax donc loolu defe naa lu am solo la ak yeneen ak yeneen ak yeneen defe naa yooyu yëpp incha allah daañ ci mën a taxaw def ci ay jéegu bu ko defee lu ñu bëgg ci fii ci Touba ñu mën ko am dama koy wax souvent jota dama ne soo gisee fii ci ci département Mbacké lu ñu fi yebal ci jàngalkat arab amul fenn Sénégal fii am na lu mat ñetti téeméer ak nangam jàngat alxuraan jàngatu arab lu ko waral moy dekk bi dafa spécial donc loolu nak war nañ ko mën jëmmal da defe na liñu jëm ni dañ ko gëna jëmmal inshallah donc yalla na ci yalla def jamm ba lepp li nga xam ñong koy mbébét ñu mën ci yegg inshallah di fédéral wa suñu taxaway ba nga xam ni naal yépp suñu bi naal ñu mën ci duggal suñu loxon mu waré ak ci anam yu mëna nekké inshallah rabbi ñu mëna a egg ci résultat yi donc cadeau yooyu laaj sanni assalamu alaykum wa rahmatullah